jaajëf Seex Moodu Kaara jaajëf sëñ bi yaayeyo jaajëf képp kuy murit war na xaw ne yaayeyo jaajëf Seex Moodu Kaara jaajëf Silla yaayeyo jaajëf waa Daarul Muxti jaajëf ma xam ne yaay bàyyi fal be Seex Moodu Kaara jaajëf Silla yaayeyo jaajëf képp kuy murit war na wax ne yaayeyo jaajëf Seex Moodu Kara jaajëf Sylla yooyooyo jaajëf Cheikh Modou Kara jaajëf Sylla yooyooyo jaajëf Cheikh Modou Kara jaajëf Sylla yooyooyo jaajëf waa Daarul Muxti ñépp a xam ne yaay Baay Faal be Cheikh Modou Kara waaw waaw jaajëf képp kuy murit war naa wax ne yaay yoo jaajëf jërëjëf Cheikh Modou Kara Sylla yàlla na nga fi yàgg te wér képp ku ko wax yàlla na nga fi yàgg te wér Cheikh Ahmadou Kara na nga fi yàgg te wér mboolem liggéey bi sa maam yoon nga yor ko sa ginnaaw way jur wi yàlla na nga ko yàggale ci sa sago te ànd koog ñun ci barkeb Serigne Touba barkeb Mama Paate barkeb borom Daarul Muxti Serigne bi sant nan la gërëm nan la ñun taalibe yi de jooyu nu dara dara dara ragalul suñu gannaaw ragalul kanam te yàlla ko tax a def yàlla na nga fi yàgg asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu Ahmadou Kara Sylla jaamub Serigne Yen sama bokki taalibe yen sama bokki bop yi yen sama dëkkandoo yi ak sama xarit yi ma leen di nuyu di leen lokkel ci bis bu tedd bi ak weer bu tedd wi nu joge di leen ñaanal ci barke borom diwaan barke ma paté barke serigne Cheikh Sylla diwaan ak mboolem doomi ma paté yépp seeni barke ak magi serigne bi yépp seeni barke noo ñaan yalla na yàlla seen aajo ci barke ñooñi am nañ mbégte lool ni ko sëñ bi amee man nag dama am mbégte ma noppi rek amaat euh, njàqare xol tuuti njàqare xol daal mooy yaakaar ji sëriñ bi am ci man ba fab yan bi teg ci man laa xamul ndax taalibe yi bokk nañ ci ab gis-gis maa ngi ñoom am déet loolu rek mooy sama njàqare xol ndax suñ ci bokkee gis-gis moom dañuy takkaat seen digg ñoom ñëpp sensé it nag aw doxin ndax nit bu ku yanu ak ku yanuwul bokkul aw doxin nag nit ki su fekkee dara waru ko teguñu ko dara nu ko neex lay doxe waaye su fekkee nag dafa nekk ci ab liggéey boo xam ne kilifaam gi mu amul ku dul moom nga xam ne addunaam ak àllaaxiraam ak addunay tay taalibe yi ak seeni àllaaxira foofu lañ ko wékk suñu yaakaar foofu lañ ko teg bu la joxee ndigal lu toll ne lii munu jox ak liñ fi fekk jur yi daan ko def nu di ko def ab yan la bu mag a mag a mag a mag may ñaan rek ñu ñu fexe ba weer wi moom buñ ko daanati yem ci dañuy fexe ba jekk ko ba buñ koy daan duñ ko yëg ndax léeg-léeg nga daan nit lool waaye sonn lool soo koo daan léeg-léeg nga daan nit amub laago soo koo daan ba bët ba toj na wala loxo ba damm na lu ne ngay dégg jël soog a am léeg-léeg léeg-léeg nag ñu ñu ñu ñu gaañ la ba noppi daan la loolu moom dalunu waaye naa bëgg ñu bàyyi xel ci ne man jàpp ma ci jàpp ma ci sama gis-gisu bopp li nu bëgg amagul nan ko loolu moo tax ma bëgg ngeen bàyyi xel ginnaaw bu ma leen santee kenn ku ne bu delloo këram na amaat beneen liggéey bu mu amaat ban liggéey taalibe yi mu yi mu xam te bokk ak ñoom ak taalibe yi dend ak moom te bokk bokk ak moom sama jëmm ji na ngeen leen soññiwaat wax leen ne leen sëriñ bi neen ku bëgg nekk xaritam na nekk xaritu na fexe ba nekk xaritu ndigalam ku bëgg a nekk xaritu sëñ karaa na nekk xaritu ndigalu sëñ bi ku ko def sopp naa la lu ma waay jege-jege ak fu ma ko mën a teg nag ndigalul sëñ bi su ko soobantalee sëñ Kara moom day maslaage waaye amatul ci yow soxla lii ngeen def nag dafa tuutiwul lool moom daa koy bàyyi sëñ bi du ma ci tudd duma ci taas du ma ci wax sëñ Tuubaa laa koy baal lii ngeen def nii weeru koor jot ngeen tëj seen buntu kër yi bàyyi seen soxna yi Bayi sen bëgg-bëgg yi bayi sen ndogu yu neex yi bayi sen yitte yi ngeen non dox weeru yalla ngeen nekk ko fi di liggéeyal Thierno ak Serigne mapat lool mom da koy ak borom borom liggéey bobu yaakaar naa bu bu leen fayé da ngeen wék té dana leen fayal boppam. ñi ngi ñaan dal ci barké borom diwan ci defé na nak dana dal ndax xol bu sedd lañ koy ñaané ko xam kuma xam sax xamné dégg ni may waxé xamné xol bu sedd tax mënumaa wax ak yeen waaye maa ngi ñaan daal góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi yéen ñëpp kenn ku ne la nga yéenee liggéeyal Serigne Touba fii ba feneen fu mu mën a doon ak kër gu mën a doon nag ngaam am kàttan nag mën caa def la nga bëgg a def. ngeen ñaanal ma Serigne Bassirou Anta Niang yàlla wéral ko te barkeel mbiram te may nu kàttan te may ko taalibe yëpp nag mboolem taalibe yi daaru bëgg ànd ak moom liggéey yal na yàlla may kàttan. ba li sëñ bi yéene liggéeyal ci yàlla nu ànd ko moom ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasuul di ñaanal sëñ mu Muntaxa yàgg fi lool te wér suñ baay bi nu amul kulul moom muy sëñ Cheikh Fassina Ndiaye yàlla yàggal ko fi te wéral ko ak jabotuk sëñ Paati gépp